da da nga bëri looy intervenir sur euh, RFI fan yi euh, gouvernement bi di ñaawlu euh, l'attitude des médias des média des médias français alors de deux choses l'une c'est des médias d'abord est-ce que jàpp nga ne c'est des médias libres mais man j'estime que c'est des médias libres qui traitent l'actualité de leur fenêtre pourquoi ngeen di contester wala ngeen di euh, def un acte de mise en accusation envers ces ces ces la par rapport au traitement de l'actualité euh, Maïmouna il n'y a pas un président un chef d'État plus respecté par les médias occidentaux que Macky Sall loolu dama la ko wax d'abord parce que dama koy dund ak ñoom man li ma gëm lay wax xam nga. Euh, damay wax waxaat toujours yu Ndour comme la nga xam moom na lépp daf ni moo demee bay mere sama bopp laay mere maintenant c'est ce qui se passe là avec la presse étrangère man gëmuma ni il y a presse bi dañu contre c'est nous qui n'avons pas travaillé. c'est-à-dire c'est-à-dire ñun ñun ñoo géré wul nos relations médias. c'est-à-dire. mais c'est bon c'est-à-dire un xam nga tey gouvernement bi am na. un ministre porte-parole du gouvernement qui fait un excellent travail vraiment dina génn dina wax mais tey qui gère la relation média entre le gouvernement au, au, au-delà des des attachés de presse du des ministères qui gère ces relations média la ñi ngi koy gérer relation média ku ci nekk yaa ngi koy gérer mais man dama jàpp ni la presse internationale c'est pas une presse que tu appelles pour une conférence de presse Maïmouna li fi xew bi mu fi xewee on devait avoir un comité de crise cellule de crise la ñu waroon a teg ñi nga xamante ni ñoom lañ ko chargé président dénk leen ko ñu waroon a am taxawaay def fenn benn cellule de crise la presse étrangère da nga leen bu problème amee da nga leen di source parce que dañu am ñaar handicap premier handicap bi presse étrangère di am mooy l'obstacle de la langue mooy dana bari lu fiy xew bon quand tu n'as pas un correspondant local qui parle wolof doo ko xam ni nga ko war a xamee de loin mënoo ko xam ni nga ko war a xamee deuxièmement tu as l'obstacle de la connaissance des réalités du pays donc dama jàpp ni ñun. mais loolu du source source ñoom am nañu ay source non mais non bu ma la waxee source je voulais pas dire source je veux il faut leur donner de la matière xam nga de la matière mooy lan. lépp lu xew à la minute même nga defee nii premier ministre conférence de presse boobu ñu def noonu ñoom ñett ak euh, les ministres là mais ils l'ont fait c'est bien mais moi j'estime que il devait le faire le président en avait besoin à temps parce que li may wax la chaque fois où le président prend la parole lui ou parle moom dina régler problème bi dama jàpp ni mbir mi bi mu amee les ministres concernés dañu waroon a njëkk a ñëw devant parce que wax wax mais baat ak tontu la mais yow gis nga laa clarté des discours de nos ministres là bi ñu waxee keroog ba pare gis nga keroog euh, Ismaël même tout max la même tout max gis nga bi waxee ba pare Ismaël Madior dafa wax tëj débat bi mais da bi mu waxee dafa leer. da ngay premier ministre dafa wax non ce que da ngay incriminer la task force communicationnelle du gouvernement et de la présidence. non du gouvernement xam nga task force xam gouvernement amul task force. communication là non non tas tas communication amuñu ko amuñu on n'a pas une communication mais je veux dire que ni tey li ma jàpp mooy di nekk presque étrangère ñun li ñu waroon a def mooy taxaw di leen jox information à temps réel. di parce que gis nga en face. mais information boo leen mënut joxe dinañ ko. confronter non mais tu n'as xam nga ndax lan xam nga ndax lan. Ah. non mais mun a. dafay am contre balance bu ñuy soxla gis nga may mun a ñi ñu jàkkaar lool ñi ñu jàkkaar lool sur à ce niveau là. dans toutes les rédactions en Europe man li ma lay wax dama ko xam parce que il a fallu man affaire bi dafa ma jaaxaloon maa jël sama téléphone j'ai échangé avec les responsables de cinq chaînes françaises et une chaîne suisse mais boo waxee ñoom ils te disent mais Malick ñun le problème que nous avons c'est que on n'a pas de répondant l'accès à on n'a pas l'accès à l'information et je le dis une fois encore man gis naa par exemple le le le ministre porte-parole du gouvernement ah, gis naa chaque fois il est sur plateau mais task force bi nga xamante ni ñoom ñoo ko war a gérer au niveau de la présidence globalement mais man j'estime que li ñu war de léegi nag li gën a simple mooy naan président non nit ñi dañ laa combiner dañ la Macky dama lay wax leen xoolal Macky au plan international moo moo xoolal mooy bomb li booy wax. mais Malick donc je pense que li ñu war a def. mooy réaction yi ñu am noonu ñu koy am à temps réel